lu xew TV seen YouTube sénégalaise da bëgg publicité jokkowal ak ñun lu TV xibaar yi wér te wóor. asalaam ziar naa leen nuyu naa leen yéen ñëpp waaw man daal. damay wax rek daal biir gàtt daal nekk na théâtre boo xamante ne neex na sénégalais yi nañ ko te théâtre bi tamit jaar na yoon jaar na woon mooy que bu mu commencé ba tey musuñu teg boo xamante ne méngoowut ak génn na ci biir série bi lépp day méngoo daal parce que. boo xoolee day am ñoo xamante ne buñ joué théâtre te buñ tegee bii beneen épisode bii di ñëw du xaaj bi niroog buñ teg ci brigade moom jàpp naa ne loolu amu ci nit ñi bëgg nañ ko man daal lenn moom ci naqari mooy sama fanks bi daal lu mu ci dee daal genre parce que man dama ko bëgg trop loolu mais daal kontaan nañ ci bu baax a baax kontaan nañ ci trop même épisode bi tamit jaar na yoon neex na. mais ñoon daal yërëm naa ko ndax moom fi ne nii daal am na problème ndax xamul daal fi mu ne nii kan daal la ci war a la ci war a kii man daal ñoon daal li ma koy digal daal mooy moom daal na na na xool xoolam daal xawam daal daal kum tànn mu ànd ak kooku xew TV na ngeen def mais man ni ma ko gisee nii aana ni ni doon bëgge aana kële bëgg ko moom tamit taw ko ko man pour man daal dafa dafa war a leeral rek ci teele bañ bëgg kii bëgg kii di leen boole sa loolu day indi réeroo ci kanam mais fi mun na leeral kenn ko man de dem naa wax naag aana nangam loolu laa la doon wax su ñëwaatee itam mu ne aana a ah, man ne bi ma jógee ci yow bi ma demee ci kee daf ma ne nangam ak nangam léegi mu xool nag nga xam aana day bàyyi wala aana day continuer wala kee day bàyyi mais pour man daal warul continuer rek ak ñoom ñaar ñëpp parce que dafay indi problème ba pare si si saar man daal ki rey kii jaaxal na ma parce que xanaa mënul nekk jëkkër ji mënul ñëw fekk ko ci salle de bi mu rey ko xanaa am na keneen ku ko rey kay xëy na mu def complice ak moom mais mënu ko rey daal mën a ñëw ci diggante mu bëgg ko fee rey yenu ko teg ci kaw lal bi asalaamaaleykum salaamaaleykum maa leen di béggee yéen Lu Xew TV di leen béggee bu baax a baax a baax di lay wax ni waaw li ngeen def ni lu rafet la affaire bu nice la quoi yaa ma gën a xam waaw di lay wax ni épisode 42 bi passé ci mœurs épisode bu nice épisode bu ñëpp rafetlu la quoi waaw Euh, ci cadre de César di César nee na yi nee na nii buur quoi lu nekk ci boppam il faut mu leer na parce que moom reyu zaan reyaanu zaan loolu la bëgg a leer instant yi te Astel tamit wax na ni Abdel euh, lu nekk si lu ko Jules César wax foog mu leer si boppam loolu moo tax ne te Abdel tamit nee na ko ni du ma la bàyyi nga dem na Abdel tamit moom tamit day day xaw a sa vécu pour bañ vérité bi feeñ la moo tax mu bëgg a Axel mu bañ a gis César César wax ko vérité bi quoi loolu la bañ te tamit euh, docteur Diop bi bu mu ñëwee wax testament bi mu waxee daal testament bi mu demee yëpp Abdel amu ci dara loolu tamit gën na tuuse Abdel ndax affaire héritage bi moo yokk tax sax mu teg teg dil bi quoi pour Raysaan waaw te ñëpp instant yi ñu ngi xaar daal épisode 43 bi waaw xool ni muy demee tamit si entre Anna ak sax ak ci don euh, inspecteur John quoi épisode boobu moom foog mu leer suñu bopp waaw di lay wax ne affaire bi nice trop loolu bii passé moom moom moom moom rafetlu naa bu baax a baax a baax affaire bu nice te waaw ñëpp kontaan nañ si daal macha allah. ça va na ngi ciy baax ça va nekk foofu am na yaa ngi ciy baax film bi moom bi nga gis gën a neex xam naa Aïda rôle boobu moo moom moo si dàqati Aïda bi mooy fi papam bi yooyu bari daa bari Sénégal yooyu ci yeet si la bokk paye parents yi lan gën a mën a yee parents yi ñoo xam ne seexluñ seen doom seexluñ seen daal Sénégal dem na boo xam ne si kenn xamatul leneen xanaa ab septembre bi waa daw tay ah mën naa épisode boobu lu ma tuusee lu ma neex la moom ci gën a neex surtout ñoom Aida seen leer bi dafa neex ndax jigéen dafa am valeur Sénégal waaye waa Sénégal am ñoo xam si joxuñu valeur jigéen waaw seen seen euh, neex na trop moom ma amoon benn message tamit bu may jàllale peut-être. Euh, whatsapp bi xaw ma waa maxte ñi ngi am audio yu normal loolu desin ma leer peut-être euh, dama ko yaakaar rek moom ma lay wax ne maanaam film bi tamit réussir na neex na jàll na nit ñi ñëpp ñu ngi koy seetaan di leen ñaan la li dal yeneen série yi mu bañ leen dal waaw ngeen am ay saison saison wax dëgg yàlla ay saison saison maa ngi koy xaar ci yéen tam naa ci yaakaar Ah, yeneen yeneen film yi fi jaar nag tout le temps ñoom tamit mooy loolu dañu jouer dana neex mais fin la am waaw ah, maanaam fin bi du baax ndax tout le temps tamit ñu koy jouer dañuy dem ba comme ni ñuy def nii di ray di ray di ray ray te dafa am ay acteur de film yoo xam ne tey bu ñu teel di génn si film baaxul quoi waaw ah, acteur yoo xam ne bu ñuy teel di génn si film nii baaxul waaw comme que li suma juumul euh, ba ban filmati la ñoom saa neex seen film bi laay fa tur bi wiri wiri waaw boo xoolee ñoom seen film bi ko mu jot tax mu suux mooy ray ray yu bëri yi quoi waaw ray daal moom acteur de film yoo xam ne moom waruñu waruñu ñàkk ci film waruñu ñàkk ci film ndax tout le temps ñoom ñooy dooleel gars yi ñoo lañ motali am na ñoo xam ne ñooy tax ñoo lañ seetaan ñoom ba ñu leen rey bëri na mais ban laalee seen acteur bi mag muy seexu naan loolu indi na problème yu bëree bëree bëri bëri si sama seen film mënatut a dem waaw ah, di leen wax ñuy fay ci côté boobu noonu waaw ay jàmbaar ngeen ay liggéeykat lan mais film série yi nii nii nii tout le temps comme yii nii moom ay rey mën na ci am mais waaw dañuy xool fi ñuy coxati bu baax a baax côté yi ñuy rey waaw période bii nii ku si mel ne Jules César kooku ku war a dund la. war a dund ko wara a yàggal fi mu ne ndax fi mu ne nii ñu bëree bëree bëri boo xoolee daloon seexu naa ci wiir wiir moom moo leen dal foofu noonu quoi waaw boo xoolee fi mu toll tey boo ko rëccoon rek moom moom ba lu ko impes wala moom lu ko dee ci bi rek moo loolu day bunt yu bëri yoo xam ne sama yaakaar rek laay waxee nag mën na fëtt mën na fëtt ndax daa am acteur film bi yoo xam ne nañ ci bàyyi nañ ci bàyyi wala bokk nañoo war a dee si fin film ba comme ni koy tubaab yi di faral defee chef de bande dëgg moom day dee ci fin ba xeex jóge fin ba daal ci la war a dee mais bu teelee dee rek mooy loolu noonu mais série bi moom macha allah kontaan nañ ci ñi ci bëgge acteurs yi li seen rôle yi joué mën nañ ko kontaan barki Seydina Mohamed dama kontaan trop du ma ko tardé chaque chaque jeudi wala dimanche du ko tardé billaay su ma ko tardé bu dee dama lu ma impé sax ba ma ko fat fat damay dugg YouTube ma téléchargé ko billaay seen yi seen lépp man du ma bàyyi dara lépp laay seetaan. duma sax seetaan film bi dong ñoom ku ci am fun la invité wala seen kii yëpp duma koy seetaan dama la ñuy bëggee di leen safoo macha allah. waaw moo wax tuuti si épisode 38 bi ça a été bien passé nee trop te am na saas aussi defati nañ ñombe laa ko mën a waxatee parce que si ñombe lañ dëkk wallahi chaque jour ñu ngi bégloo waa àdduna di leen jàngal yu bari bari di leen teg si yoon macha allah. ñu doxalee noonu la nu muy kase doxalee ci bi baax na daal comme ni ko nit ñi di waxee rek ñëpp suñu meloon ni moom bi macha allah jàmm rek fi bari parce que lii mooy dëgg ku deful yoon moom dañ laa war a teg si yoon waaw loolu moom mooy dëgg te mooy la am waaw Zil moom wax dëgg si yàlla keroog avant may avant ñu xam ko waray saan dama ne gaay naan ma. waaw Gilles moo ko aaye ma ne non Gilles doo raysaan Gilles boo seetee ci film nga xam ne Gilles euh, du raysaan quoi parce que dëgg la zaan teg na ko lu nekk mais moom xam na fu jaar ak zaan daal <laughs> lu bari xam na ko si moo tax dëgg la te am te ku am fulla la si li muy see tamit ku mën a doxarolam la kaxama billaay vraiment ma dama lay félicité bu baax a baax di leen encouragé rek delloo fi nga jàpp foofu la wallaahi ñu ngi kii bu baax yal na leen yàlla gën jàppale rek taxaw leen macha allah ñu ngi kontaan bu baax si ñoom bilaay. asalaamaaleykum wa rahmatullah taala wa barakaatuhu Lu Xew TV maa ngi leen di nuyu bu baax. maanaam man tey maa wax lu dawoon démb ci série bi maanaam mooy ci Euh, brigade de femme boobu noonu démb ci ba ma ko seetaanee bon ma gis ci loo xam ne tamit euh, lu yéeme am tamit loo xam ne tamit lu garaaw ci surtout ci Jules César maanaam ñu ne nit ki moom ndeysaan du bañ mu ko kii ko defar ci àdduna maanaam moom wane na ngor dëgg dëgg dëgg ndaxte gars yi ñoo nañ nee nañ ko nañ dem moom tamit defa blank bañ mu ne moom daal du dem il faut mu xam daal lan moo rey ki nga xam ne moo di patron am san ci biir loolu maa ngi waxaa tamit ci li nga xam ne maanaam moo di Abdel Abdel moom du nitu dara ndaxte moom moo dem taraay en plus euh, nekk foofu tamit di wone ay kanamu innocent yooyu et que fekkee innocent moom moo def lépp waaw moom moo def lépp waaw di wone ne daal maanaam moom defu dara te moom moo def lépp nag voilà donc nag ñu ngi leen di nuyu ci loolu tamit bu baax di leen jégalu tamit asalaamaaleykum wa rahmatulah taala wa barakaatu. waa Lu Xew TV man nag euh, daa am lu ma lu ma bëggoon laaj tuuti si ka Jules César quoi parce que Jules César gis naa benn instant mooy fu mu doon dafa ak ak John mooy foofu la njëkk a génne. après foofu John euh, da ko jox benn benn yére après mu mu sol après mu am lu mu dóor mu am lu mu dóor kii John après mu daal di mu daal di génn après kii ñëw quoi voilà xaritam bi ñëw après ñu yëg si oto bi ñu dem quoi waaw après ma gis benn instant tamit juste encore nekk si prison nekk si prison nekk ak euh, ak kii ak buur ak buur après bu ñu. bu ñu génnee mu nekk mu nekk beneen beneen génn quoi léegi man ña ñaari génn ñaari génn stage de prison gis naa mu génn ñaari yoon wante gisuma moom fu mu duggee ñaari yoon quoi la moom moo xaw a jaaxal tuuti. salaamaaleykum waa Lu Xew TV nuyu naa leen bu baax a baax di leen ziar waa man euh, ci mës laa bëggoon wax brigade des femmes. Euh, voilà donc euh, dernier épisode bi nii euh, gis nañ ne Jeanne agressé nañ ko xaw ma day dee xaw ma du dee mais man daal dama yaakaar ni Abdel la Abdel laa ko yaakaar parce que Abdel ñëpp xam nañ ne Abdel amul xaalis Jeanne moo am xaalis Jeanne moo ko yoroon et tout. Pape Jeanne moo doon diriger et tout te man Abdel depuis le début wóoluma ko Abdel man xam naa ne li muy wone ak li mu doon dëgg dëgg dëgg du benn Abdel du nekk euh, le gentil petit mari nii rek comme ça rek di obéir ay ordre Jeanne non non yaakaaruma loolu vraiment man dama yaakaar ne Abdel moo ko moo ko moo ma nag day dee xaw ma du dee ok ñu ngi leen waaw Lu Xew TV nuyu nañ leen ñu leen di sant ci liggéey bu rafet bi macha allah ak kenn ku ne di wax xalaatam lu ko metti ak lu ko metti wul wallahi mais man daal vraiment vraiment film bi moom neex na fu neex yem mais daal Jules César daal moom niñ koy kiiwee dafa yomb de trop daal dafa yomb. waaw Jules César waaw ay rëccam ak yooyu daal ak ni muy génnee dafa yomb de trop waaw dafa yomb daal vraiment te Jeanne daal moom vraiment waru woon a demee noonu daal waaw waru woon a noonu loolu moom lu ñu metti la vraiment waaw. salaamaaleykum waa Lu Xew TV maa ngi leen di nuyu di leen ziara mbaa yéen am jàmm di rafetlu bu baax a seen liggéey yi nga xam ne ne yëpp ñoo leen di di leen suivre ñi leen suivre daal maa ngi leen di ziar di leen ñaanal jàmm loolu dama bëggoon commentaire quoi ci Serigne Mars Mars ay euh, la boo xam ne man dama koy suivre quoi euh, épisode un ba tey maa ngi koy bu baax a baax mais li ñuy am gis naa ni lépp am na ba kooku noonu violé woon doomam boobu ay daa xawma loolu noonu noonu la am noonu la amee te am na ñu koy dund am na ñuy dund tamit lu gën a métti loolu te seeni waajur ñoo leen koy teg mu doon loo xam ne ki ne duñ ko mën a nettali kenn wala mu doon loo xam ne ki ne duñ ko mën a partager ak kenn daal duñ ko mën a wax ak kenn parce que loolu dafa metti loolu ñu ci noonu lu am la. Euh, kantaan yi nga xam ne nii ne nag moom lañ jàppoon si jigéen yi ñu rëcc xama ñëw fa yéene taxawal seen brigade pour défendre seen bopp même loolu noonu Sénégalais yi am na si góor yoo xam ne nii ne dañoo tegul jigéen seen place ba nga xam ne nii ne lu leen neex lañ leen di def affaire yooyu noonu ñoom loolu lañ jug pour défendre ko mais loolu tamit lu am la. lu am solo la jeu bi daal boo xoolee ni ma ko mën a waxee li ñuy li ñuy joué boo xool lépp dafa nekk réalité lépp dafa am lu am la ñuy joué mu doon lu série bu neex boo xam nekk nii ne man moom nii ma constaté wu nii maa ngi koy doog a euh, def ci série vraiment doon na série bu neex boo xam nekk nii ne daal ñu ngi ciy bàyyi xel bu baax a baax leen ñaanal seen liggéey gën a jëm si kanam quoi. je veux être plus explicite maanaam xaritam bi man dama xamul exactement turam bi xaw ma nu tudd léegi kooku moo war a jege tata umu kalsum expliqué moom tamit kaawam ni ko moom elle a vécu la même chose kayda parce que moom dafa doon dund loolu ak ak tontonam loolu la wax ak nijaayam loolu la wax léegi nag comme ñoom loolu moo taxoon ñu mel ni kuñ bokkatuñ ci dund bi daal genre topp beneen dund banditisme yooyu noonu genre léegi nag comme ay Aïda dafa yàlla dafa def mu dese de moom mu jéggi tata Oumou Kalsoum mu xamante ne ci wàllum fondation bi lay liggéey jéggi ko expliqué ko kaa bi genre après liggéey ak moom pour jéem a bàyyi habitude bee genre arrêté rôle boobu daal léegi mu nekk nit ku baax yee nit ñi. sensibiliser la la la jeunesse ak yaay tamit ñu bàyyi xel bu baax ci seen doom loolu après ñu bàyyi xel bu baax ci mami aussi xaraku ay dabi comme sœur moo ko doon protéger ba décédé ñu bàyyi ci ñu bàyyi ci moom xel jàppale ko waaw léegi xaritu ay dabi daal bëggoon naa moom bàyyi euh, jikko boobu noonu daal di def nit ku baax man loolu laa ci gis quoi. maaleykum waa TV maa ngi baax di dëgg la dëgg am na solo yan yan yàlla yàlla ko bu baax a baax ay télé télé télé télé waaw man ci moo ko kaa mës waaw ñu am na solo solo bu baax a baax a a lu kii gannaaw bi ñu lay leeral kaa yi mel ni bëri na Sénégal papa yi di violer seen loolu dañ ko fi war a éviter mu jëlee ko fi ndax loolu moom doy na waar trop trop trop trop affaire bi bizarre daal kenn xamul daal daal. yi damay gis ni def si ay moins dix huit ans de douze ans waaye loolu fi mu toll nii Sénégal moom du ko fi xale yi ndaw koy seetaan comme seen comportement cër yi comme solo bi ni sol am na épisode yoo xam du seen séer yi sax beneen yi la. boo xam ne ñu ngi wane keroog koy seetaan suñu wàkk dama rus ba fi ma toog mënuma si muy benn série la woon mi affaire yu doy waar te loolu série Sénégal yi war na ñoom moytu idole moom loolu gisuma ko si te suma te moo tax benn série bu ma neex la daal neex daal yi daal mu ëpp ne di leneen yi kii nag benn seen benn fans la bu dëkk Bambey ñoo ko Moodu waaw teg si tey jii li ngi seen bande annonce si lañ gisee seen numéro bi jël ko enregistré ko benn yàgg bi waaw tey de ñun bu ñu xool ñu lan mun loo xam ne mooy benn ñu lan mooñ si loo xam ne daal lan lañ mën a conseil di bëggu tey ji buñ ko seen yokkit mu gën ñoon ne muy si wàllu benn côté si colin gi quoi ak yenn yoo xam ne pour xale yi koy seetaan quoi beneen ni loo xam ne tey man pas seen bos bi nii bari gisuma ko ci gaa ndax seen yu bari seetaan naa ko ci passé waaw ci yenn série yi laa ko gis comme ñuy comportement yenn colin ak di wane yenn yenn yoo xam ne waruñu ko wane daal ci biir pour xale yi di ko gis affaire yooyu te. salaamaaleykum yéen waa Lu Xew TV maa leen nuyu baax leen ziare bon en fait que man seen numéro si YouTube bi laa ko jëlee am benn série bu ma doon suivre ñu koy wax Mœurs. bon muy série bu am sens lool vraiment ma leen di encouragé bu baax di leen ñaanal ñu àggale si jàmm ak salaam waaw série bu am solo man depuis ma commencé ba léegi yàgg naa ko siifur euh, siifur ma ko ci télé nag si internet bi rek laa koy seetaan si YouTube bi mais am na solo trop waaw maa leen encouragé bu baax bon di ñëw si commentaire rek bu fekkee ne affaire de brigade bi la man su ma soñoon Marley lañ koy jox quoi. bu fekkee mën ko jox marle tamit ñu jox ko Collé mais man moom marle marle moom laa moom laa jox favori quoi parce que bu ñu xoolee groupe bi moom moo ci gën a intelligent quoi ci rôle bi mu waaw moom laa gis mu nekk ci ko xam ne moo ci gën a intelligent waaw ci wàllum euh, ci lépp daal man moom laa gis daal euh, bu fekkee ne tamit deuxième point bi muy. Euh, Craysan waaw kooku Jules César laa yaakaar man parce que boo gisee zane bi mu ubbee bunt bi dafa dafa arriéraat daw dugg si salle de bain bi waaw kon dèjà xam na xam na ko ku nekk ci xam na ko dugg si quoi waaw bu fekkoon ne buuru buuru bi la kon du daw kon dina ko laaj waaw man Jules César laa jàpp ne moo koy zane asalaamaaleykum wàllu xew tv maa ngi leen di nuyu di leen bëggee waa di kontaan rek ci séri bi ndax série moom nii la te théâtre dañ na yeete bu demee rek ba amatul yeete jaru ñu naan théâtre euh, série bi moom kontaan nañ ci lool sax am nañ ci mbégte ndax doon na loo xamante ne luy jàppale ñun jigéen ñi la ak loo xamante ne ñu ngi koy dëj suñu biir sëy yi wala ñu ngi koy dëj biir kër yi wala ñu ngi koy doj ci mbedd loolu yëpp siri bi taxaw na tey ah di ñu ci jàppale bu baax lépp loo xamante ni amoon na nëpp nëpp tey jii nii siri bi taxaw na di di nëpp nëpp boobu yëpp di def dëgg te dëgg mooy njëkkee te dëgg mooy mujjee te ñoom ñu ngi jàngale dëgg lu mu metti metti metti metti metti lu mu neex neex neex ñu ngi ñu ngi wane dëgg daal mooy lépp. salaamaaleykum. Lou Xew TV ñu ngi leen di nuyu di béggee di jaare ñëpp ñi nga xam ne ñoom ñooy bégé la xew tv bi waaw di wax ne affaire bi am na solo daal kenn ku ne mën na see gis boppam ñun bu dee si côté émission 37 bi buy am tey euh, si côté ana bi ko chanson bi daa mel ne chanson bi moo ko seet si woon mi ngi naan ko dafa mel ne saafara bu jur jàng la quoi man dafa comprendre ñoom élément bi daa am ñun ci jàppaat wala moom dem gi kidnappé bi ñu ko kidnappé woon moom moo tax muy wax ndaxte mm, moom dane saafara bu jur jàngoro te instant bii nii ci këram la nekk di ko di ko wax fi la ko sans bi fekk man dama comprendre daa am ñun jàppaat ci élément yi wala daal bu fekkee am na benn commentaire bu mu déglu kooku daal ne Ilimane wërta wërta wërta wërta wërta yor kii bi brigade bi dana war a xool ki nga xam ne moom moo ëpp xam mooy euh, bu dee nga xam ne moo ëpp xam-xam mooy ki nga xam ne moom mooy toog bu jaaxle moom moo leen di guider mais boo yorul formation bi yaakaar na mënoo giide kenn te am na affaire brigade yii nii. yaakaar naa boo amul boo amul boo amul boo soo amul formation bi yi ci war dëgg-dëgg doo ko si mën a def man foofu laa gisee beneen bi mooy ah, jabari monsieur le maire yi fi ñu doon waxtaanee mu naan ko yow yow lii moo wax ko monsieur le maire nga si nga si nga si nga si am lay métti quoi te sa sa jarbaat. dañ koo le kon dèjà da ngay xam ne am na loo xam ne famille yi ñoom ñoo koy nëbbanti seen biir ndax kooku buñ ko bàyyi woon rek jabaru monsieur le maire bi affaire bu du siiw kon ba ñuy jàpp pas avec quoi kon dañ koy nës nësal mu wàcc mais tamit foofu noonu ci côté ayda bi mooy que sa doom bu ko yar yarin bul nu mu la neex lu ko neex sol lu ko neex woo doo fu ko neex toog. boo nekkee sa néeg mi ngi fii ñëw di sol solin bu bon goo xam ne kenn xamul solinu lan la kon yooyu sa doom war nga koy mën a tere daal col ko gu bon baaxul bu ko bu ko xeewul woon ci biir kër gi tamit mën na génn mu xeew ko ci mbedd bi kon sa doom war nga lijjanti lu muy sol ak lu mu du sol beneen bi mooy ci côté Jeanne ak Jules César Jules Dane Jeanne moom moo ko yor bi mu nekkee xale bu léegi moom moo ko yor Jeanne bin ko Jeanne biñ ko jàppee bin ko yóbboo police di ko enquête dane man Jules man maa ko yor waaye yorewu ko rey mais yarin bi mu ko yaree moo tax muy rey ndax am na fidi ndax dañ ne ki la jikko bu def ci rek mooy mooy nekk ci ndax Jean boo xoolee bandi la Jules ñemewul woon Jean sax toxi doona wum def Jean Jean toxi doona wum def Jules lay yebal pour mu mën ko ce génne oto bi mu ko bi mu si mbëkkee nuur Jules la jox oto bi pour mu mën koo génne pour mu mën cee set moom la yoon ci hôpital ba pour mu xool ko ba xam mi ngi dund wala dundul tey Jules César noonu la mën a def pour Jeanne mucc ci mooy rey ko kon nit ki soo koy défendre da ngay xam ci li nga koy défendre mooy que am na ñoo xam ne yar bi ñu yar yar bi ñu yar baaxul Jeanne yar bi mu yar Jules César baaxul. ndax moom moo ko may fit woowu muy tax muy def loolu lépp voilà gars yi foofu laa am comme commentaire. asalaamaaleykum wa lu xew TV ziar naa leen bu baax a baax di leen béyee nag man nag si théâtre boobu laa wax moof la biir gaat boobu noonu laay sama théâtre man si théâtre yëpp man boobu la mooy sama si boobu laay seetaan waaw maa ngi leen di béggee bu baax baax a baax surtout Ana. ak waa Mor ñëpp moom dama leen a bëgg rek te yàlla tax bañ commencé seen épisode bi un ba léegi wax dëgg yàlla maa ngi seetaan di ma amuma waaye connexion ñoo may tax may jënd connexion orange bu minute bi ma koy télécharger rek après bu am ra ma télécharger ko seetaan waaw waaye lu xew TV maa ngi seetaan seen épisode dix bi gaa yi ngi si commentaire waaw maa ngi seetaan gaa ngi si commentaire nag. waaw benn maa ngi dégg benn jigéen mu ne ak dee yi bëri na ma ne ko wax nga dëgg dee yi mu ngi bëgg bari sax de xam nuur dee na fii ak ayda ak saan bu dee day bëgg bari de waaw surtout ayda bi man dee am bi noonu la ma métti waaw dama ko faraloon dëgg dëgg waaw ak sil César léeg-léeg damay sil César dama koy bañ bañ loo xamante ni waaye <laughs> damay ne théâtre bi moo laaj waaw maa ngi siyaare ñëpp daal waaw. yéen waa yéen waa Lu Xew TV maa ngi leen di nuyu di leen bëgg di leen am jàmm rek dañ wax ne mm, li ma bëgg a waxal la ci li xew xew-xew yi ji la di eh, Zery Meuve Sel César eh, la di li dafa doon am. c'est que fii Touba rek ñu ngi fi wax rek lu yàggut lu mel noonu fii Touba démb rek dañ fekk ñaari xale ci seen i kii ñu ray leen ci seen i néeg waajur ñu rend leen affaire bu yéeme c'est que da di andi euh, da di kii criminel yi ci boobu dañ leen a war di téye jàpp leen c'est que bu defoon ku ray nit rek tay ko def ko un deux waratuñ la bàyyi sax yenn sécurité yu tuuti yi sécurité ak force lañ la war a defal bu nga teel a giir dund kon lii moo doon ci sama xalaat ci li liy xew ci nga xam ne moom la criminels di doxee ci jamono jii c'est que bi mu xoolee ba xool dafa yomb nit ñi dañuy dem ba foog ne ñu ngi ci jàmm nga dégg benn criminel fa liwaat feneen ñëw ak i ñaaw téefam c'est que zine nag moom mm, grand kii la quoi c'est que roulam bi muy juré dafa jàllu nii bi ñu juré dafa am c'est te li mu ne wax du wéeru la rek dañu wax naan fii Tuubaa dañu fee rey ñaari xale yoo am na leen fekk ñu te ñu rendi leen ko ci seen kaw lali waajur ñu tegul fenn ni moom war nañ ci mën a jóg quoi bismillahi rahmani sheytaan rajim bismillahi rahmani rahim waa waa lu xew TV ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen ñaanal yàlla yàlla yàggal leen fii yàggal seen taxawaay yéen ñëpp incha allah bi jaaxi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa di ñëw di ko ñaanal waa Sénégal di ko ñaanal waa Afrique di ko ñaanal àddina bi yëpp si barke yentu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam man fi ma bëggoon wax rek mooy si série mœurs bi ñu ngi nuyu ñëpp ñëpp ñi nga xamante ne ñoo nekk di ko liggéey ñi nga xam ne ñoo nekk backstage ñi nga xamante ne ñoo koy joué aussi ak uh, waa senegal yëpp di leen nuyu di leen ziyaara di leen ñaanal yàlla ñëpp wax dëgg yàlla ñëpp di ñaanal ñëpp gudd fan ak wér ak wér la fekkee tal jëriñu mu jig ñu doon li gën ci ñu ñi ngi wax waa mars ñoom ñëpp wax dëgg yàlla ñun fii lañ nekk xaw na sori tuuti waaye dañ daan dem di jënd le film nigérien yi ndax ñun amuñu dara fii amuñu dara lu ñuy épanouir donc à part télé yi ngay seetaan télé yi nga xamante ne ñoo nekk ci dëkk bi su ko weesoo dootoo amante leneen loo def mais kii yi nekk Sénégal yëpp ay dina ma neex ak yi nekk Sénégal yëpp idol yëpp ak euh, Pod et Marichou yëpp vraiment waa Sénégal li ngeen li ngeen di def yàlla na ci yàlla taxaw dimbali leen may leen moyen bi ngeen koy defee te dimbali ñi nga xam te ñoo leen koy liggéey te yàlla may leen gudd fan ak wér ak wér la fekkee tal jëriñ mu jik leen dool li kër ci ñun ak euh, yoonu siraat kal mustaqiim incha allah wax dëgg yàlla ñu ngi kontaan trop waaye tamit ñi ngi ñaanal auditeurs yi parce que euh, am nañu tey ak dal seen wax itam rafet na ñu ngi leen di ñaanal ñoom tamit parce que dañ ciy participer te participation bi yaakaar naa tamit waa mars ñu ngi déglu bu baax parce que gis naa maa ngi déglu bu baax émission bi di déglu lu xew TV aussi di déglu seen émission yëpp vraiment maa ngi gis Sénégal daal kàcce gaalaama yàlla ñu yàlla may ñu continuer lu ñuy def te yàlla saxal ko ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam parce que wax dëgg yàlla kontaan nañ li daan am bu njëkk ba amatul te ñoom li xew rek la ñu yàlla na yàlla defal leen tawféex defal ko waa Eh, lu xew TV defal ko waa Mars defal ko bépp nit bu taxaw Sénégal muy woykat ya xam ko mënti doon yàlla defal leen jàmm ci seen liggéey mu jëm kanam te mu ànd ak yoonu siraat kal mustahin incha allah ñu ngi leen di ñaanal yàlla bu baax ngeen xam ne ñu ngi leen di supporter aussi bu baax nekk leen ci jàmm bu baax waa Mars big up à vous kaw ci kanam incha allah. waaw waa Pesco TV waaw maa ngi leen nuyu di leen ziar waaye di kontaan ci laay commentaire yu jot yàlla am na yu mu si déglu si YouTube quoi kontaan ci lool waaw man nag sama wax ci kii la ñëw quoi Abdel parce que Abdel man dil boobu mu def ba bëgg ba bëgg a rey Jeanne wala ba bëgg ñu menacer Jeanne wala bëgg bëgg lu mu am ci ay dossiers yu mu am si Jeanne waa tax na ba Jean parce que man pour man Abdel Jean da ko daa toppoon Jean ndax ndax intérêt bi kii quoi ndax alal bu Jean am quoi voilà léegi finalement gis naa balaa Jean di dee sax nu mu nu mu doon nu mu doon xoolee rakkat yi waaw damaa xam ni Abdel léegi daa léegi maanaam léegi bëggatul Jean léegi maanaam rakkat yi da bëgg quoi pour man. xam ma ndax xaalis bi la xam ma daam daam cofel ci ci ci rakk ji pour man la sax daam cofel ci rakk ji après daam cofel ci xaalis bi famille boobu xaalis bi ko intéressé quoi pour man sama jàngat. waaw maa leen di genre waat eh, yéen waa Lu Xew TV brigade des femmes eh, épisode trente cinq trente sixième bi. Eh, dama cee gis benn affaire boo xam ne ni il est temps ñu jële ko ci Sénégal li tax nëpp nëppal bi affaire mbokk affaire yooyu noonu daf fee war a jeex takk takk euh, ndax euh, xale bu jigéen bi bu demee ba faatu papam moo ko rey amuy lu leer nañ ndax li tax mu rey ko mooy li ko naqari muy am fukki at ak ñaar la ko def comme jabar di ko jabaroo di ko jabaroo di ko jabaroo di ko jabaroo ba mu dem ba màgg ba xàmmee ci loolu adapté wu ci loolu dem bay commencé jaay boppam ci mbedd bi mhm. groupement ça va si loolee moom li ma gis si épisode 38 bi mooy que ne Abdal li mu def saa ñaaw na trop parce que moom genre da kaa bëgg jox ko lépp amul lu muy def di ko rey mais loolu yëpp lu mu si jot pour jot si alal bi mais loolu yaakaaruma mu sotti yaakaaruma mu jot si alal bi moom mun na peut-être mun na si jot mun na si bañ a jot tam waaw te siyaaraatam ni muy def xale yu jigéen yi ñaaw na trop te Umu Kalsum tam moom ak kii Umu Kalsum moom ak wujjam bi Umu Kalsum moo nekk ci dëgg waaw parce que kelum ko nekk di lii lu ko meree mooy deewu Ayda bi que deewu Aida bi Umu Kalsum bu Aida li woon bu jaraatu woon mu def ko dakaa war a def waaw parce que xale bu am 12 ans nga topp di ko tëddee daal def ko jabar ba mu toll noonu noonu loolu moom ñaaw na trop loolu moom dañ kaa war a génne si société ba dëgg-dëgg merci jërëjëf loolu amoon pour commentaire si épisode 30 bu passé. asalaamaaleykum Abel moom dafa ñàkk war ma rek ñàkk war ma rek la def foofu te jigéen bu la jëlee di la suturaal yoroo dara mu di la jàppale di la jàppale ba nga toll waroo bëgg alalam rek tax nga di ko sànq alalam la bëgg moom la bëgg a jël ci xale bi li mu jox xale bi moom la bëgg a récupérer ak alalam nekk fa dama yaakaar naa ne dafa bëgg aana moo tax ma def yëpp waaye fecc na kóllare ñàkk na war ma daal daal amul war ma rek daal. asalaamaaleykum eh, lu xew TV maa ngi leen bëgg maa ngi charge yéen nga am jàmm. oui dañ wax film moom macha allah macha allah film bu ne jaar mais bii moom pour man benn moom waaw Morsi moom pour man benn moom waaw yëpp ku si nekk rôle bi la jox yaa ngi koy waree waaw yaa ngi waree man nag moom. ci côté jigéen ñi eh, nekk ay bandi noonu man ñoom ñoom ñoom moo gën a neex quoi waaw ah, seen tur yi laay reprendre sax moo tax mooy ñoom ñoom moo gën a neex film bi macha allah wax yàlla gën a tax ma bëgg film bi si man maa bëgg rôle yu jox la ko nga joué si macha allah ah, fi mu ko jàpp yoon bi mooy loolu daal waaw ma xam ni moom te xam nañ ñi tamit Sénégal ñoo xam ne film bay seetaan. film bi boo ko seetaan del xool li nga xam si ni moo am chance nga di ko jariñu li nga xam si nekk amul chance après nga bàyyi ko mais bu Sénégal dañuy seetaan film comme si que lu am la wala lu naturel la quoi lenn li ku ci nekk xam ne lenn li am na mais lenn li tamit ñu ci bañ a penché bu ëpp quoi ndax da nga gis sax ko jouer film ba pare à part ça nga romb ci mbedd yi sax ñu lay xool yenn bët yi te mooy loolu noonu quoi. waaw dañuy xam ne film la ñuy joué ay acteur la te tamit seen métier mooy loolu waaw mais macha allah seen film bi jaar na yoon trop trop trop trop trop trop waaw ñaa ngi ci gis seen bopp trop a dëgg yàlla ñi mu doole ak ñi nga xam ne dañ lañ tooñ te xamuñ fu koy jooyee sant yi yéen nañ ñuy gunge yéen ñu may xel ak yéen ak yéen kenn mënut a wax lépp daal. asalaamaaleykum na def ñu ngi ci jàmm. Baye man théâtre bi man lenn kese man moom ci xaw a jaaxal quoi. comme sa jigéen ñooñ di ci tux waaw parce que bu nee yeete ñoo war di yeete ci leneen mën nañ mën nañu indi beneen rôle bandi bu bokkut ak tux xam nga mën nañu indi beneen rôle bandi bu bokkut ak tux parce que tux léegi xam rek booy dañ koy seetaan yaakaar dëgg la di tux xam nga jigéen ñi waruñ cee newoon di tux tamit. ma amoon benn message tamit bu may jàllale peut-être euh, WhatsApp bi xaw ku am waxtu ñi ngi am audio yu normal loolu desin ma leer peut-être euh, dama ko yaakaar rek moom ma lay wax ne maanaam film bi tamit réussir na neex na jàll na nit ñi ñëpp ñu ngi koy seetaan di ñaan la li dal yeneen série yi mu bañ leen a dal waaw ngeen am ay saison saison wax dëgg yàlla ay saison saison maa ngi koy xaar ci yéen tam naa ci yaakaar waaw yeneen yeneen film yi fi jaar nag tout le temps ñoom tamit mooy loolu dañuy jouer dina neex mais fin la am. waaw ah, maanaam fin bi du baax ndax tout le temps bi ñu koy joué dañuy dem ba comme ni ñu def nii di ray di ray di ray ray dafa am ay acteurs de film yoo xam ne tey buñu ñuy di génn si film baaxul quoi waaw ah, daa yoo xam ne bu ñuy tere génn si film nii baaxul waaw ah, comme si que li daloon suma juumul euh, euh, ba ban filmat la euh, ñoom saa neex seen film bi laay fa tur bi wiri wiri waaw boo xoolee ñoom seen suñ bi li ko mu jot tax mu suux mooy ray ray yu bëri yi quoi waaw ray acteur de film yoo xam ne moom waruñu waruñu ñàkk ci film waruñu ñàkk ci film ndax tout le temps ñoom ñooy dooleel gars yi ñoo lañ mottali am na ñoo xam ne ñooy tax ñoo lañ seetaan ñoom ba ñu leen rey bëri na mais ban laalee seen acteur bi mag muy seexu naan loolu indi na leen problème yu bëree bëri bëri bëri seen film mënut a dem waaw dinañ wax ñuy fay ci côté boobu noonu. waaw ay jàmbaar ngeen ay liggéeykat lan mais film série yi nii nii nii tout le temps comme yii nii moom ay rey mën na ci am mais dañuy xool fi ñuy coxati bu baax a baax côté yi ñuy rey waaw période bii nii ku si mel ne Jules César kooku ku war dund la ku war a dund la ku war a yàggal film bi la ndax fi mu ne nii ñu bëree bëree bëri boo xoolee daloon seexu naa ci wir wir moom moo leen dal foofu noonu quoi waaw boo xoolee fi ñu toll tey boo ko rëccoon rek moom moom ba lu ko MPS wala moom lu ko mu dee ci suñ bi rek moo loolu day bunt yu bëri yoo xam ni sama yaakaar rek laay waxee nag mën na fëtt mën na fëtt ndax daa acteur film yoo xam ne nañ ci bàyyi nañ bàyyi wala bokk dañoo war a dee si fin ba comme ni koy tubaab di faral defee waaw chef de bande dëgg moom day dee ci fin ba xeex cooki fin ba daal ci la war a dee mais bu teelee dee rek mooy loolu noonu mais série bi moom macha allah kontaan nañ ci ñi ci bëggee acteurs yi li seen rôle lu ñuy joué mën nañ ko kontaan barki Seydina Mohamed dama kontaan trop duma ko tardé chaque chaque jeudi wala dimanche duma ko tardé billaay su ma ko tardé bu dee dama lu ma impé sax ba ma ko fat fat damay dugg YouTube ma téléchargé ko billaay seen interview yi seen lépp man duma bàyyi dara lépp laay seetaan du ma sax seetaan film bi dong ñoom ku ci am. fu la invité wala seen kii yëpp duma koy seetaan dama leen ñu bëggee di leen safoo macha allah.